Cheikh Abdoulaye Mbacké Cheikh Abdoulaye durus kitaabullahi lay fanaane waxtaanu sëriñ bu mag ba lay waxtaane Cheikh Abdoulaye Mbacké yaa jara way yaa jara jox hidaaya yaa jara jaamu yaa nu yokkal jumaa ji salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe bu ngeen déggee bàkk boobu sëriñ Cheikh Mbaye Diouf ubbee léegi muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jàmbaar ja ah ngeen xam ne nag bis bu mag bis bu tedd bisub jàmbaare lislaam ja dikkati na ñu jàkkaarloog sëriñ Cheikhul Khadim Mbacké mu baax mi toog moom sëriñ Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad muy ñaanal mu Mountakha mu yàgg fa loolu téwéer jëlee ndigal nag ca baayam bu baax ba muy Serigne Sidi Mbacke xalifa Cheikh Abdou Lahad Mbacke borom daaray Kamil yàlla na fi yàgg téwéer màggaluk Cheikh Abdou Lahad borom daaray kaamin doon nag ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kor yi yaakaar naa nag bis boobu kenn dootu ko fàttee mi ngi doon la ci weeru tubaab le 27 le 27 juin moom lay doon tombeeg bisub alxemes Serigne Cheikhul Khadim di woote màggaluk Cheikh Abdou Lahad Mbacke gi fi mu ko daa defe rek ci yoonu gaaras daaru mus yu dekk dend ak jàkkay njug a kebe bis boobu nag moo ñor sëñ bi ci alquran moo ñor sëñ bi ci xasida moo ñor sëñ bi ci nag ñëw fii nag di ko fi dundal di ko fi màggal ba tax na waa àdduna bépp ñu ngi waajal màggalu Cheikh Abdou Lahad Mbacké waaye duma sori ñoo ngi nii toog ak Serigne Moustapha Cissé mi nga xam ne si ni mooy président liggéey bi ci mbooleem xidmatul xadim yépp sëñ Moustapha dana ñëw ci ñoom ñu jël kàddu gi jox ko sëriñ sëriñ Ahmadou Mbuub sëriñ Ahmadou Mbuub mi nga xam ne si ni wax naa la ko soo ñëwee fii ci buntu kër bi fekk ko mu toog ci baas bi jaar-jaari Cheikh Abdou Lahad Mbacké loolu la ñuy wax lan expression bi <laughs> ah loolu moom nag dana ci ñëw insha allahu rabbi Abdoul Karim dana wax ci wàllu organisation bi ndax ku ne xam ne nag màggal ak organisé waaye bu ñu ci jógee sunu jigéen ba nga xam ne si ni mooy wax ci turu soxna yépp woowaale ci jigéen ñëpp ak daara yépp soxna Faat Saw di bàyyi faadub Serigne Cheikhul Khadim Mbacké moom it dana ci ñëw bu noppee ñu jël kàddu gi jox ko oustaz Ngingue moom it mu am euh, mu am muy joxe ci ay kàddoom su noppee ñu jël kàddu gi jox ko Serigne Cheikhul Khadim Mbacke mu Serigne Sidi mu Cheikh Abdou Lahad Mbacke jàmbaar ji. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi leen baaxoo nuyoo ci waxtu wi ci kanam jëmm ju sell jëmm joo xam ne liggéeya kon Cheikh Abdou Lahad Mbacke la di Cheikhul Khadim moom Serigne Sidi Mbacke. gannaaw ba nga xamee ne jëlee na ndigal ci ay waajuram ngir màggal bisu maamam ja Cheikh Abdou Lahad Mbacke ak gane àddunaam jëmm ju sell jooju mu fas ko yéenee ànd ak. daaray alxuraan yi nga xam ne ay wëlëreem lañ ay soppeem lañ tàmbalee ko ci sëriñ Mor Magat Ndiaye ak sëriñ Mamor Kan sëriñ Xaarim Gaye sëriñ Daouda Mbay euh, ca Thiès sëriñ Abdul Abdou Salaam sëriñ Xaas Siise sëriñ Moustapha Dieng sëriñ Cheikh Fall Italie Abdoulahat Amar ca cap ak soxna Aydara Amar ca Maroc ñooñu ñenn lañ ci ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi di àndal ci màggal gi ngir njàngoom alxuraan bi ak xaside yi te ñu tàmbali ko diirub euh, weeru koor wi parce que yéene ànd ak moom ba màggal gi euh, ñenn lañ ci mbooloo moomu ñi ci des yóbbaale ñiñ tudd yóbbaale ñi ci des waaye jataay bi da ko dul mate waaye kon ñu lim ñëpp euh, di durus kesu xaside yëpp it sëriñ baa ngi leen ci woo di leen ci soññi képp koo xamante ne am na ci ab lim ci alxuraan ji ak xaside yi sëriñ Moustapha Sylla nga xam ne mooy nangu lim yooyu ànd ci ak sëriñ bi ci màggal googu kon nag ñu ngi ci woo ñëpp fi ñu leen ci baaxoo woowee fii ci kër euh, jàkkay njóogi kebe di ci soññ mbooleem daara yi fu daara mën a nekk rek te mën a def jàng alxuraan def ko addiyee Cheikh Abdoulaye Mbacke ñu ngi la ci woo di soññ tamit mbooloo mi ci ci koñ bi ak fépp fu soppe mën a nekk wala taalibe rek ci siyaar bu mag bi nga xam ne moom lay dem siyaare ji bu ñu ne ginnaaw suba la màggal gi siyaare ji ko way juróom 4 heures na fekk ñëpp ñu waaj ànd ak yar ak ay teggin dem ci kanam jëmm ju sell jooju di sëriñ di mu fi nekkal sëriñ Abdoulaye Mbacke jërë ngeen jëf mbokki jullit yi ak mbokk yi ñuy seetaan yépp ñoo ngi leen di nuy di leen ziar fi ñu leen baaxoo nuyoo muy ci siège social lu xidmatul xaddim di kër sëriñ Cheikhul Xaddim mu sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoulaye Lahat sëriñ bi nag am yéene ci sëriñ Abdou bëgg ko woone ci fànn yépp moo tax euh, nañ ko baaxoon a am amee ci fukki at yi weesu yépp ñu war fee amal exposition ci suñu wàll wi nga xam ne moom la féete exposition boobu nag jëmmale ci ñeenti tomb tomb ba ca njëkk mooy sëñ Abdoulaye Lahat dinañ ko ca wone comme dañ ko ca baaxoon woone wante ren nag ñu jëmale ci benn anam boo xam ni dañ cee wone ay tombam ci ay jàngale jëme ci àdduna ji nga xam ni moom la ñu nekk ak fële ñu jëm alaaxira ba ca des ñu ci rendre hommage comme nañ ko baaxoon a defee ci waa kër Serigne Touba yépp wante ren it ñu tànn ci kenn ci waa kër Serigne Touba yooyu muy Serigne Abdoulahi borom dër bi wante gannaaw moom lañ cay rendre hommage it ñu cay fàttaliku sëriñ Cheikh Abdoulahi borom dër bi di nekkoonu xalifaam bu point boobu jàllee am na troisième point bi nga xam ni sëriñ Touba Cheikhul Khadim ginnaaw ca tukkeem boobu nga xam ni at yi weesu yëpp la commencé woon ca Gabon ba Mauritanie yëpp ren nag étape bi nga xam ni moom lañ ciy jàllee muy étape bu Thiéyène Jolof. wante bis bañ koy commencé nag mooy bés bañ ko baaxoon a commencé. muy ca àllarba ja bu ñu xëyee rek gannaaw ba ñu jógee ca ziyaar ba bu ñu xëyee rek exposition bi da daal di ubbi bu ubbee nañ ko baaxoo na defee lañ koy baaxoo ba lañ koy defee nii kilifa yu ñëw rek buñ gannaaw bañ siyaaree sëñ bi bala ñoo dem rek dañuy daal di dugg ci exposition bi ñu gidde leen ñu baaxoo cee àndal ña nga xam ne ñoom lañ ci baaxoon a àndal muy waa étudiant association des élèves et étudiants de Touba waa AET am na benn livre d'or bu ñu fay bàyyi nag ngir ñu bàyyi fa seen i impression maanaam seen i xalaat ci taxawaayu liggéey bi am na yu bëree bëree bëri ca kilifa yi Touba yi nga xam ne ñoo fi nekk ak kilifa yi bii biir réew mi ak bitim réew mi. ñu ngi leen di siyaare yéen ñi ñuy seetaan ginnaaw bi ñu leen siyaare si bërëb bu tedd bii di sëñ Cheikh Khadim Mbacke jàmbaaru sëñ Sidi ñu ngi wax si turu li nga xam ne mooy ordu jàmbaaru sëñ Abdou Lahad Mbacke xam ne mooy maamam lool ak ak di leen nag di leen soññ si di soññ suñu bopp ci wàllu organisation bi ñi nga xam ne tey ji mooy matériel yi ñu war a jëli buñ ne suba la siyaare bi di ko soññ mboolem daayiru xidmat xadi yëpp waaye di ko soññ mboolem képp ku nekk si gox bi ñu lay soññ bu baax a baax bu ko defee ñu mën koo teel a jëli ginnaaw timis bu ñu jullee timis pare jëli ko incha allah indiwaat ko fii ànd ak dal ànd ak yar bu ñu demee nag ba ci wàllu siyaare bi itam ñu organise suñu bopp org ndax nit kenn kenn ku ne yaa war a organise sa bopp ngir si siyaare bi ndax boo fekk kilifa ka war nga faa jariñoo kon nag nañ yiwal lépp si ànd bañ a ànd ak coow bañ a ànd ak wax bu ko defee ñu ànd ànd ak dal buñu àggee rek bu soobee yàlla lépp lu sëñ bi ñaan rek danañu fekk si ndax nit kat bu fekkee da ngay taataani war ngaa mën a ànd ak dal ànd ak yiw kon nag ñu ngi soññi ñëpp bàyyiwuñ kenn li si jiitu nag mooy organisé bi li si jiitu mooy setal barab yi nga xam ne tey jii moom la war a nekk ñu fas yéene ko setal mbokk yëpp ñu ngi leen ñu ngi leen ñu ngi woo ci bis bi di ko fàttali bu soobee yàlla tey buñ nga xam ne suba siyaare bi si la ñu jëlee matériel yëpp. waaw di leen fàtteem organisation màggal gi ni ñu koy faral di defee muy ci wàllu waañ bi ba ci wàllu li nga xam ne mooy baas bi ak dalee yëpp ñu organiser kenn ku nekk fa nga fa nga féete xam nga ko nga nga fa seeni sa jublu fa ne sa passé bu baax a baax ndax ci wàllu waañ bi tam ñu organiser bu baax a baax a baax xam ne ay gan la ñu dalal bu dee ci wàllu daluwaay itam ñu ànd ak yiw ànd ak yar xam ne itam ay gan la ñu dalal ndax gankat yaakaar naa day xool te bu xoolee de bu àggee day nettali kon nag ñun ñi nga xam ñoo nekk fii war a dalal gan yi nañ yaata suñu xol maanaam bu ko defee bañ a wàcc wàcc yëpp bu ñu yaatalee suñ xol rek gan ñëpp boobaa danañ danañ gën a yiw gën a gën a mën a fee fee li nga xam ne mooy ci màggal kon nañu gën a góorgóorlu baax a baax ci wàllu baas beeg yëpp ñu góorgóorlu si ndax baas bi suñu bokk soxna itam ñu ngi leen ci soññi ñi nga xam ñooy organiser ñu yombale leen ko baax a baax soñli col gi na yiw bu baax bu ko defee rek yaakaar naa lépp dana dana jaar si jàmm bu ko defee nañ bëgg si borom màggal gi dañu ko am incha allah bu ngeen jàkkaarloog ñun bis bi nu dëgmal muy bisub Cheikh Abdoul Ahad moo tax ñu toog fi tey ñi leen di fàttali li nga xam ne si ne mooy màggalu Cheikh Abdoul Ahad bi tombeek ñaar fukki fan ci weeru kori ak ñett ñi ciy soññ mbooleem ñi tënku ci xidmatul xadim mbooleem daayira yépp di soññ mbooleem daayira yi xam ne si ñoo nekk si koñ bi di soññ yaa sukkay mbay daayira si sukkay mbay ñu ngi koy soññ ak bajaan buub ak mboolem daayira yi nekk si koñ bi yépp ak daayira sunu yaay màggat géey ñu ngi koy soññ bu baax a baax daayira sëriñ Mustayim ñoo ngi koy soññ ci liggéey bi ndax ñoo ko bokk ak ñoom di soññ sama mbokki jigéen ñi nga xam ne si ne ñoom laa bokkal liggéey bi yépp di leen wax ne màggal gi ñëw na bis bi ñëw na sunu bis la ñu taxaw comme nen fi daan taxawee ci def si loo xam ne si ne mën naa ne la daanaka ko fee def lépp loo xam ne si ne lu nu war la ci kër gi rek daanaka duñ leen ko waxatee ndax xam ngeen ko kon ñu ngi leen di soññ yéen jigéen ñi ñëpp di soññ waa koñ bi yépp nag di leen wax màggal gi ñëw na sunu màggal la nañ leen wàcc lal yi génn kër yi dalal gan yi te yaatal lépp nag te xam ne xel na bis bi sunu bis la ñu ngi soññu ñëpp nag di soññu góor jigéen mag ak ndaw di soññu wàllu soxna yépp nag soññe bu baax ci sama mbokki jigéen ñi li nga xam ne si ne mooy col gi li ko commencé ci siyaar bi nga xam ne si ne ñoo ngi koy siyaare ci suñu waajur woowu di sëriñ Sidi Mbàkke mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Abdou Lahat li nga xam ne si ne mooy sol gi ñu ngi ciy soññe bu baax a baax mboolem koo xam ne yaa ngi tënku si daara xidmatul xaddim sax boo dee ñëw na nga préparé si déguisement yi ndax moom moo ñu gën a yitteel te col yi képp koo xam ne si ne yor nga déguisement na doon bu jot ñi ngi ciy soññe bu baax a baax ci biir baas beeg ñi ngi ciy soññe col yu baax ba ci biir màggal gi ci gan yi ni dalal ak yooyu yëpp ndaxte dañuy dugg si biir kër gi di dugg di génn di njoyante kilifa yi te am na col yoo xam ne si ne méngoowut ak di rombante kilifa ñi ngi soññe bu baax a baax ci col yi ci sama mbokki jigéen Eh, li ñu war a màggal lépp am nañ ko bés boobu nag la ñuy dëgmal ngir di sàkku tuyaaba ji nga xamante ne yàlla diggéene ko ci koo xam ne ki da ngaa màggal suñ tuwaa bind wax ne wala yab taasima kulla maa wajab taasima yaa man yaqudul ajib yàlla may na ma lépp lu ñu war a màggal bu dee bés am na ko màggal la du jeex bu dee nit eh, suñu borom may na ko lu baree bare ci ñi nga xamante ne ñoom mooy njabootam gi kon loolu lenn la woon rek ci li ñu tënkoon ci wax ne suñu borom wax na ko ci digee màggal ku ko def suñ tuwaa bindaay wax ne xabliya taasima jami la yàlla may na ma lépp lu ñu war a war maa war koo màggal imaan yakun insan aw yakun makaanan aw yakun eh, eh, eh, yawman ma benn mu nekk bés wala béréb kon xam nañ ko wala mu nekk jëmm kon jëmm ji ñu war a màggal nag mooy bés muy Seex Sidi mi nga xamante ne moo fi toogal Serigne Abdoul Ahad mi nga xamante ne mooy borom màggal gi di ko def nag fii ci kër Serigne Seex Xadi Xadi mi nga xamante ne moo ko fi nekkal salaatuhu hanni xalal abdil ahad mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina waa kër sëriñ Tuuba yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu suñu borom defalee tawféex ñi teew fi ñu daan teew ngir fàttali suñu bisu jàmbaari jooje di Cheikh Abdoulahi Lahad di ci woo mbokki jullit yépp di ci woo mbokki taalibe yépp rawatina waa kër sëriñ Tuuba yi ci màgglu jëmm joojee nga xame ne mooy yaakaari Serigne tubaa ji di Cheikh Abdoul Ahad jëmm joojee nga xamee ne bi mu gënee àdduna ci njaareem la Serigne Touba waxoon ne ku man aw turam rek sa yaram araam na sawara nekkoon jëmm joo xamee ne Serigne tubaa dafa waxoon ci moom ay may yu baree bari na moom la ëndaale jëmm joojee nag mboolem ngëneel yu mu ëndaale lépp da koo defoon ak laxasaay takk ko ci ndiggam di liggéey Serigne tubaa kenn ku ne xam ne ne yaakaar ji Serigne tubaa amu ci moom tësu ko benn yoon mu liggéey ci mu liggéeyal Serigne Touba liggéey goo xamee ne murit yépp ko amel njukkal kookee nag la ñuy woote ci bisam di ci woo taalibe Serigne Touba yépp foofu waaye mën a nekk ñëw fekk si ñu fii ci Touba ànd ak ñun bis bi ndax jëmm la joo xamee ne ñun ñëpp ko ameel njukkal kon nag ñu ngi leen di woo ci bis bii nga xamee ne mooy anniversaire bu Serigne Abdoul Ahad te Serigne Touba waxoon ci gan gii mu ñëw de ëndaale na daraja yonent yàlla Isa wax ci may yu baree bari kon taalibe bi fu ab taalibe bi nekk rawatina bi Sëriñ Tuubaa war naa ñëw ma jéem jariñu ci bis bii nii kon ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn képp ku bëgg a jariñu rek ñu ngi lay woo ci bisub Sëriñ Abdul Ahad bii képp koo xamee ne nag mas naa laa lebal nag ma fay si ci bis bii ndax amul lu dul moom ku ma musta lebal it nag ma lebal ci bis bii ndax bis bii rek laa am te mooy mooy sama bis woo naa ci lu ñu ma bokkal sëriñ Daaru Hasan Njaay ñëpp man ngi leen ciy woo mboolem ñu ma bokkal kër sëriñ Mari la ak askanu Bakol bàyyiwuma kenn ñëpp woo naa leen jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërë ngeen jëf mbokk yi kon bis baa ngi noonu dégg ngeen sëñ bi ni mu wootee bàyyiwulu kenn bàyyiwulu ñenn bàyyiwulu fenn bu nu xëyee nag alquranul karim ja ku ne xam na ni bisub Seex Abdou Lahad Mbàkke ak alquran durus kasida def ay bismillah ñaanal sëriñ Sidi Mbacke mu yàgg fi loolu te wér ñaanal Cheikh Mountakha mu yàgg fi te lépp ñu def ko addiyee Cheikh Abdou Lahad Mbacke borom daaray kaamil waaye bu nee ginnaaw suba la màggal gi nag siyaare bi bin baaxu di defee mboolem fa xidmatul xadim nekk moo xam ñu ne Touba moo xam waa Gambi moo xam waa cap moo xam fu mu mën a doon ci adduna bi ba ci waa Kébémer waaye fàttewul nag ah daare bi nga xam si nag moo jiite nag ñeeño yi sama yaa màggat ñu ngi ko ciy soññi xidmatul xadim bi nga xam si ne moo jiite ñeeño yi ak xidmatul qadim diaspora bi ñoom sëriñ Alaaji Géy jiite ko ñoom ñëpp ñu ngi la ci woo sëñ Masaan Mbow sama waa ji ak waa ñeeño yi foofu nag mooy sama dayre kon ñu ngi leen ci soññi di leen ci euh, bàyyi xel bu baax bésub Seex Abdou Lahad Mbàkke baa ngi noonu ku fi ñëw Seex Abdou Lahad Mbàkke fat la sëñ bi wax na ko léegi foo jaar romb bi jëfi Seex Abdou Lahad Mbàkke daaray kaamen ji Seex Abdou Lahad yokkub jumaa ji Seex Abdou Lahad kër mag maam gi Cheikh Abdou Lahad ay ñu raxmati Cheikh Abdou Lahad université bi Cheikh Abdou Lahad balay subri sëñ Mbàkke ak maaram ñu ne ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kor yi tombeeg bisub alxames ku fi ñëw sëñ Bamba fan la te ku sëñ Bamba fan nag doo fanaan biti wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu